Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ñi ngi len di nuyu ci sen tour ak ci sen sante yéen ñi safo di setan sen télévision islam tv yow sama bokku julli bu góor yow sama bokku julli bu jigéen foo munti nek ci kaw suuf mo xam bir rew wala bitim rew islam tv mo lay woo nga ak sa borom subhanahu wa taala ni ngeen ko xamee dëgmal nañu liggéey bu ama am solo moy taxawal télévision islam tv tele bo xamanteni di nga ci mën a jàng sa diine sàmm ci sa njaboot te doo ci dégg lenn loo xamante ne dafa safaanu. Islam TV dara nekkul yitteem loolu lan tasaare yàlla nee yant bi nee ci kaw suuf. am nañu suñuy studio am nañu personnel bi nga xamante ni mooy jàpp ci liggéey bi ndax lépp mën a taxaw fi mu nekk képp koo xamante ni yaa ngi Pikine yaa ngi Kër Massar yaa ngi Mbaaw wala yaa ngi parcel di nga mën a seetaan télévision bi. ci réseau câble yi suñu mbébét tey mooy ñu dem fu gën a sori loolu te yaakaaruñ ko ci kenn lu dul yéen ñi safoo di seetaan seen télévision. ci loolu Islam TV soxla na cent mille musulmans yu taxaw ngir jaayanteeg seen digganteeg seen boroom ci mille francs at bu ne. cent yoo xamante ni tey dinañ am taxawaay bu am solo ci mbir moom mooy ku nekk at bu nekk. nga fas yéene joxe mille francs muy ñaari téeméer. mën na nekk ci yow sadaqa jaariya mu nekk loo xam ne day wëy waxu yàlla ak yoram tam di wër ci kaw suuf nit ñi di ci gindeeku ci la ci 1000 francs bi nga joxe bul ko xeeb. bu ko defee li nga xamante ni bëgg nañ ko ci télé bi li nga xamante ni yaakaar nañ ko ni mën nañ ko jariñ askan bi mu nekk luy mën a antu nekk luy mën a am. yàlla na yàlla motal ñun ñëpp. baarakallaahu fiikum. Chers frères et sœurs filles ce message vous est adressé. Car grâce à tous vos efforts consentis, Islam TV Sénégal a fini par émerger. Et là, nous en sommes à un tournant décisif qu'il ne faudrait surtout pas échouer. Hommes et femmes, main dans la main, nous vous demandons tous de contribuer par une modeste somme de 1000 francs chaque année afin qu'on puisse couvrir tout le territoire sénégalais. Alhamdulillah, nous sommes persuadés que toute la Ummah islamique va se mobiliser. Car quoi qu'on puisse dire, notre communauté est dotée d'une très grande générosité, d'autant plus qu'Allah subhanahu fait la bonne annonce à ceux qui dépensent pour sa cause en disant dans le Coran, ceux qui dépensent de leurs biens, nuit et jour, ouvertement et en secret, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. et n'ont pas à avoir peur car ils ne seront point affligés. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها المسلمون عباد الله اوصيكم بنفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلانيه عباد الله اعلموا أن من مقامات الدين العظيمة ومنازله العالية الرفيعة معرفة الرب العظيم والخالق الجليل بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى وما وما تعرف به إلى عباده في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل إن هذا عباد الله أساس من أسس الدين العظيمة وأصل من أصول الإيمان المتينة وقوام الاعتقاد وأصله وأساسه معرفة الله جل وعلا بمعرفة أسمائه وصفاته ما أعظمه من مقام وما أجلها من منزلة وما أعلاها من مرتبة حينما يعرف المخلوق خالقه وربه وسيده وموجده ومولاه فيتعرف على عظمته وجلاله وجماله وكبريائه ويتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلى على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عباد الله كتاب الله جل وعلا فيه آيات كثيرة ونصوص متضافرة فيها الدعوة إلى معرفة الله ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى وبيان ما يترتب على هذه المعرفة من الآثار الحميدة والنهايات الرشيدة والمآلات الطيبة قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون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 ونصوص واضحة فيها الدعوة إلى تعلم الأسماء والصفات ومعرفته ومعرفتها ومعرفة الله تبارك وتعالى وفي القرآن الكريم قرابة الثلاثين آية فيها الدعوة إلى العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كقول الله تبارك وتعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم وقوله تبارك وتعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وقوله تبارك وتعالى واعلموا أن الله غني حميد وقوله تبارك وتعالى واعلموا أن الله سميع عليم وقوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما والايات في هذا المعنى كثيره عباد الله ان معرفه ان معرفه الله عز وجل ومعرفه اسمائه الحسنى وصفاته العظيمه باب شريف من العلم له الاثر البالغ على من اعتنى به وفهمه يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة تأمل رعاك الله هذا الأثر العظيم والنهاية الطيبة لمن أحصى تسعة وتسعين اسما من أسماء الله تبارك وتعالى فإن مآله بإذن الله تعالى إلى دخول الجنة وليس المراد عباد الله بإحصاء أسماء الله في هذا الحديث حفظ ألفاظها فقط دون علم بمعرفة معانيها ودلالاتها ودون قيام بمقتضياتها وموجباتها بل المطلوب في الإحصاء العلم بمعاني أسماء الله مع حفظها وفهمها والقيام بما تقتضيه فهي ثلاثة مراتب المرتبة الأولى حفظها المرتبة الثانية آه، آه، فهم معانيها المرتبة الثالثة القيام بالعبوديات المختصة بها ومعنى ذلك أنه ما من ما من اسم من أسماء الله جل وعلا إلا وله عبودية مختصة به فهي من موجبات العلم بذلك الاسم بل إن الكثير من الأسماء بل إن لكثير من الأسماء عبوديات كثيرة فما أعظم عباد الله أن يقبل العبد على معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولعلنا عباد الله نضرب بعض الأمثلة على ذلك يتضح بها المقصود يقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في هذه الآية الكريمة أخبر جل وعلا عن نفسه بأنه سميع بصير وفي آيات كثيرة جاء الإخبار عنه تبارك وتعالى بهذا بهذين الاسمين العظيمين فإذا عرفت أيها المؤمن أن الله عز وجل من أسمائه السميع فعليك أن تعرف الصفة العظيمة التي دل عليها هذا الاسم العظيم ألا وهي أن الله عز وجل سميع لجميع الأصوات جل وعلا يسمع جميع الأصوات عاليها وخافضها لا يخفى عليه تبارك وتعالى منها صوت بل إن العباد لو وقفوا في زم من زمن آدم إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لو وقفوا جميعهم في صعيد واحد وسألوا الله عز وجل في لحظة واحدة وكل منهم يذكر مسألة خاصة به وبلغات مختلفة ولهجات متباينة لسمع الله عز وجل أصوات الجميع دون أن يختلط عليه صوت بصوت ولا حاجة بحاجة ولا لغة بلغة وانظر ذلك في قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي المخرج في صحيح مسلم حيث يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يأتي المرأة المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لتشتكي إلى الله وكانت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة رضي الله عنها في البيت فتقول عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأصوات إن المرأة لتناجي رسول الله أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض إذ أنزل الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير فإذا أمنت أيها المؤمن بأن الله عز وجل يسمع صوتك ويسمع كلامك فكيف يليق بك أن تسمع ربك جل وعلا من الكلام ما لا يليق ومن الأقوال ما هو باطل كيف لا تنشغل بذكر الله وتلاوة آياته وتسبيحه وحمده والثناء عليه تبارك وتعالى فلا يسمع منك إلا القول السديد والكلام النافع لماذا لا تحفظ الأقوال ولماذا لا تضبط الكلمات أليس الله جل وعلا يسمع كلامنا ويرى مقامنا ويعلم بحالنا وإذا آمنت أيها المؤمن بأن الله عز وجل بصير وأن من أسمائه الحسنى البصير فآمن بالصفة التي دل عليها هذا الاسم وهو أن الله سبحانه وتعالى بصير بكل شيء يرى كل شيء سبحانه وتعالى ويرى جميع المخلوقات وجميع الكائنات من فوق سبع سماوات يرى جل وعلا من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل بل إنه جل وعلا يرى جريان الدم في عروقها ويرى جل وعلا كل شيء كل جزء من أجزائها يرى ذلك جل وعلا من فوق سبع سماوات ولو دنوت أنت من هذه النملة على هذه الحال والوصف لما رأيتها فما أعظم بصر الله جل وعلا أيها المؤمن إذا علمت أن الله بصير بك ألا تستحيي من الله أن يراك وأنت تعيش في نعمة الله وعطيته ومنته وفي ملكه سبحانه وتعالى ثم تبارزه بالذنوب والمعاصي والخطايا والآثام ألست تعلم بأن الله بصير بك يراك ويطلع عليك ولا تخفى عليه منك خافية وهكذا عباد الله بقية أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ينبغي علينا أن نعنى بها فهما وتدبرا ثم من بعد ذلك قياما بحقوقها وواجباتها من مراقبة الله جل وعلا وخوفه وخشيته والإنابة إليه والإقبال على طاعته كما قال بعض السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد وفي هذا المعنى يقول الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء عباد الله ورد في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سريه وكان يقرا لاصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله احد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الله عز وجل يحبه وفي رواية قال حبك إياها أدخلك الجنة تأمل عباد الله حب أسماء الله وصفاته العلى يدخل الجنة لأن هذا الحب يحرك في القلوب الإقبال على الله تبارك وتعالى والقيام بعبوديته وتحقيق طاعته والبعد عن نواهيه اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ñi ngi len di nuyu ci sen tour ak ci sen sant ye ñi safo di setan sen télévision Islam TV. yow sama mbokku jullit bu góor yow sama mbokku jullit bu jigéen foo munti nek ci kaw suuf mo xam bir rew wala bitim rew Islam TV mo lay woo nga ak sa borom subhanahu wa taala. ni ngeen ko xamee deugmal nañu liggéey bu ama am solo moy taxawal télévision Islam TV télé bo xamanteni di nga ci mën a jàng sa diine sàmm ci sa njaboot te doo ci dégg lenn loo xamante ne dafa safaanu. Islam TV dara nekkul yitteem loolu lan tasaare yàlla nee na yant bi nee ci kaw suuf. am nañu suñuy studio am nañu personnel bi nga xamante ni mooy jàpp ci liggéey bi ndax lépp mën a taxaw fi mu nekk képp koo xamante ni yaa ngi Pikine yaa ngi Kër Massar yaa ngi Mbaaw wala yaa ngi Parcelles di nga mën a seetaan télévision bi. ci réseau câble yi suñu mébét tey mooy ñu dem fu gën a sori loolu te yaakaaruñ ko ci kenn lu dul yéen ñi safoo di seetaan seen télévision. ci loolu Islam TV soxla na cent mille musulmans yu taxaw ngir jaayanteeg seen digganteeg seen borom ci mille francs at bu ne. cent yoo xamante ni tey dinañ am taxawaay bu am solo ci mbir moom mooy ku nekk at bu nekk. nga fas yéene joxe 1000 francs muy ñaari téeméer. mën na nekk ci yow sadaka jaariya mu nekk loo xam te day wëy waxu yàlla ak yoram itam di wër ci kaw suuf nit ñi di ci gindee ci la ci 1000 francs bi nga joxe bul ko xeeb. bu ko defee li nga xamante ni bëgg nañ ko ci télé bi li nga xamante ni yaakaar nañ ko ni mën nañ ko jariñ askan bi mu nekk luy mën a antu nekk luy mën a am. yàlla na yàlla motal ñun ñëpp. baarakallaahu fiikum. chers frères et sœurs filles-là, ce message vous est adressé car grâce à tous vos efforts consentis Islam TV Sénégal a fini par émerger et là nous en sommes à un tournant décisif qu'il ne faudrait surtout pas échouer hommes et femmes main dans la main nous vous demandons tous de contribuer par une modeste somme de 1000 francs chaque année afin qu'on puisse couvrir tout le territoire sénégalais. Alhamdulillah, nous sommes persuadés que toute la Ummah islamique va se mobiliser. Car quoi qu'on puisse dire, notre communauté est dotée d'une très grande générosité, d'autant plus qu'Allah subhanahu fait la bonne annonce à ceux qui dépensent pour sa cause en disant dans le Coran, ceux qui dépensent de leurs biens, nuit et jour, ouvertement et en secret, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. et n'ont pas à avoir peur car ils ne seront point affligés. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد mbokk jullit yi maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ragal yàlla subhaanahu wa taala ak di ko fuglu di ko bàyyi xel ñu xam ne ragal yàlla mooy yóbbal bi ëpp solo bi nit di yóbbaale ëllëg mbokk jullit yi ñu xamne bok na ci maqama yi gëna kawe ci diine gën ci mag xam julit bi jaam bi xam boromam muy ar rabbul azim xam allah mi nga xamne moko bind bind ay wajuram bind mboolem bindé fi bind lépp lu am waye xam yàlla subhanahu wa taala li la ci dimbali nak moy nga xam turam yu rafet yi turam yu rafet yi ak melokaanam yu kawe yi ndaxte kat ci turam yu rafet yooyu ak melokaanam yu kafe kawe yooyu ak jëfam yu tedd yooyu ci la nu xamale boppam ci la xamale jaamam yi boppam ci téeréem bi ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ñu xam turam yooyu ak melokaanam yooyu saxalal ko ko ca nam yelle ci moom bañ ko nuróoleeg lenn ci melokaan doomu aadama wala turu doomu aadama waye dañ koy saxalal yàlla subhanahu wa taala ci nam yella ci mom ñu xamne kenn mënta xam itam melokanu yàlla na mel dëgg ndax yàlla rek boko xam waye nak dañ ko saxalal mana yoyé ak melokan yoyé ak turam yu rafet yoyé diko ci ñaan diko ci jaamu loolu dafa bok ci ponki diine yu mag yi nga xamne julit bi da ko wara xam ci day suxat gëm yàlla day teetam li nga xamne moy mooy mbokk julit yi xam yàlla subhanahu wa taala ci turam yi ak melokaanam yi maqaama mu kawe la mu rëy la fa yàlla subhanahu wa taala ndax amul dara lu gën a rëy jaam bi xam kan mooy ki ko bind xam kan mooy boroomam xam kan mooy sangam xam kan moo ko moom xam kan moo koy defal lépp loo xam ne rek lu mu am la mu xam itam màggaayu boroomam boobu ak taaram akub rëyam xam ay turam yu rafet ak melokaanam yu kaw yi comme ni nga xam ne ni mu ne ñu lay ñëwee ci alquranul karim ak sunna si bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk jullit yi bu ndelee ci alquranul karim danañ gis ne ay aaya yu bare bëree bëri ñëw na di woote ci xam turi yàlla yooyu ak melokaanam yooyu ak di ko jàng ndax loola day am jeexital yu mag yu muy def ci doomu aadama bi ak résultat yu mag yo xam da ko cay amé sun borom subhanahu wa taala ci surat al iraf nee walillahi al asmaul husna fad'uuhu biha ne yàlla de moom moom tur yu rafet yi na ngeen ko ci ñaan ci ngeen bàyyi ñi nga xam ne moom dañuy weddi ay turam sun borom dana leen fay seen jëf bokki fofu ñu xam ne nit ki buy ñaan ne ñaan turu yàlla ci turu yàlla moy ñëw ci al-qur'an ak sunna motax boy ñaan nga tuddu tur wi nit ñëwé ci alquran te mënta ñak nek ci làkku arab ko ya allah ya rahman ya rahim ya samiix ya qarib ya mujib yaa ya latif da nga wax sa soxla ci làkk boko bëgg wax nak bu la sobe way turu turu yàlla bi nañ fexe ba diko tuddu tudd na nga xam ne la ko borom subhanahu wa taala tuddee bopam ci benen aya borom subhanahu wa taala ne نيان لين الله ولا نيان الرحمن قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن من نيار تول يوي بوغنتي نيان رك باخنا ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى نخ يالا موم موم توري رافي كون تور بو نيك رك تي تور يالي من نغا تي نيان سا سوخلا داي ني نك بروم خام خابي تود نان لي غينا يال موي نيت كي سوخلا بيم ام مو نيان مو نيان يالا تي تور وغا خاني مو غينا ديبوك سوخلا سوسا bu dee yërmaane nga ñaan ci turu arrahman bu dee ñeewent nga ñaan ci turu allatif bu dee wërsëg nga ñaan ko ci turu arrazaq wala alkarim wala alwahab loolu lu am solo la ci ñaan gi ak gaaw a nangu ñaan gi ci beneen aaya suñu borom ne allahu laa ilaha illa hu lahu al allah nee amul kenn kun war jaamu ci deug ku dul mom ca mom mom tur yu rafet yi tur rafet yi nak moy yi nga xamne mo moo wàcc alquranu karim wala yaronte bi alayhi salatu wasallam tuddu ko ci lamiñam ci ay hadith yo xamne yu wér la bu ndeme ci suratul xashr ci mu jëntal ga suñ borom ni ci tuddu lu bëri ci ay turum yu mag yu rafet huwa allahu alladi laa ilaha illa hu moom de mooy allah mi nga xam ne amul kenn ku war a jaamu ci dëkk dul moom aalimul xaybi wa shahaada moo xam kumpa moo xam itam lu fés huwa arrahmaanu rahim mooy arrahmaan mooy arrahim firi gi ni firi tur yi ci yeneen i làng firi moom a tekkiwul na mooy tur yàlla waaye tur yàlla bi mooy nam tudde boppam ci làkku arab loolu mooy tur yi nañ ko bàyyi xel bu baax mooy arrahmaan mooy arrahim waaye ngir ak jegeel rek ban mën koo dégg mooy aji yërëma ji yërëma ji ci arrahman ak rahim am na ay firi yu bari yu ko borom xam-xam yi firee di ko wuutele di leen tudd seen wuute bokk na ci arrahman ki nga xam ne mooy yërëm ñëpp ci àdduna moo xam ñi ko nangul wala ñi ko nangulul arrahim mooy ki nga xam ne mooy beral yërmandeem ña nga xam ne ñoo ko toppoon yowmal xiyaam loolu ci firi yi nii la am na yeneen i firi itam yudul yooyu sun borom ne wat huwa allah mom de moy allah mi nga xamne amul ken ku wara jamu ci deug ku dul moom al malik moy bur al qudus moy aji sel ji salam moy borom jam ci moy aji jamal ji al mu'min moy ki nga xamne moy may ak dal moy may kolute al muhaymin moy ki nga xamne mom not lépp mom mom lépp العزيز موي اجي تيد الجبار موي اجي ماغدي المتكبر موي اجي ريج سبحان الله عما يشركون سن بروم ني تودنا تودنا سلو الله تي ليب لو خاندي دنجكاي بوكال ولا نكاي تقال هو مم الله موي باتي الله يالا باتو يالا بوبو صح ليغا خاندي موي تي موي يا الله ndax baatub allah amul ci ben lak amul ben lak bu ko mën firi amul ben lak bu ko mën firi motax lak bu nekk dang koy bàyyi ci nam mel khaliq moy aji bin ji al bari moy aji sos ji al musawwir moy ki xamne moy melal minef yi nu ko sobe num ko sobe lahu al asma al husna mom mom tur yu rafet yi suñ borom subhanahu wa taala سنبرم تتكتي يسبح له ما في السماوات والأرض مولم لنكتي أسمان أكسوف لني سلل يالا ديكو سبال موخم يأمرو ولا يأمرو كم نكو برم بوحي تبنين آية وإن من شيء إلا يسبح بحمد أمو الدرر لو أم لدول لمن سبال يالا وهو العزيز الحكيم تموي أجي تدجي موي أجي خيرين جي موك دي آيات ينيو تي بنت بي برين اللول waye sax nak amna yeneen ay yo xamne da fay ñëw di diggal julit ñi ñu jàng tur yàlla yi ak melokan yi bok na ca yooya suñ borom neena fa'lamu anna allaha azizun hakim jàng leen ya'lamu moy xam leen jàng leen ne yàlla kat aziz la hakim la aji tedd la aji xarit la kon jàng momu yamul rek ci nga xam ko wala nga jël baat bi di ko ci xamul lu muy tekki waye da nga wara xam limi tekki xam li nga xamne ne mom la mom moom la mom lay sàkku ci yow ci tur wo ci beneen aaye suñu borom ne ilamu anna allaha shadidul iqaab jàng leen xam leen ne yàlla ku tar mbugab la wa anna allaha gafur rahim ci ngeen jàng itam ne yàlla ku mën a la ku mën yërëme la ci beneen aya aaya suñu borom ne waalamu anna allaha ganiyun hamid na ngeen xam yàlla ku woomal la ku ni sant la ci benen aya sun borom ne wa'lamu anna allaha samiun alim xam leen ne yàlla aji deg la aji xam la ci benen aya sun borom ne fa'lam annahu laa ilaha illa allah ne ngeen xam jàng ne yàlla amul ken ko wara jam ci deg ku dul moom baat bobu sax dañ ko wara a jàng war ko xam xam limi tek ci benen aya ci suratu at talaq ci mujjantal ga suñ borom ne yàlla de mo bind asmani juróom-ñaar bind ci suuf tam juróom-ñaar nee na borom bi subhanahu wa taala di wàcc ay ndigalam ak ay ndigal ak ay ay ay ay ndigalam ak ay tereem ci digg seen diggante ngir ngeen xam nee na lépp li tax yàlla bind ko ngir ngeen xam ne yàlla lépp la man ngir ngeen xam itam yàlla lépp la pek ci xam-xam kon loolu liñ ci dégge moy dund bi muy aduna ci ak asaman ak suuf lépp yàlla da ko bind ngir ñu xam ne yàlla subhanahu wa taala ku màgg la ku ay tur yu màgg la ku am ay melokaan yu kawe la kon jàng ak xamlu turi yàlla yi ak lamuy tek ak limuy wundu lol waru gar la ci ab jullit moo tax la bu tedd bu am solo bo xamni julit di war nañ ko jox waxtu war ko jàng bu baax baax nañ ko wara jànge ndax dafa am lu leen di jëriñ ci sen pass pass yonent bi alayhi salatu wassalam ci hadith bu wér bu nek ci bukhari muslim bu abu hurayra solo jële ko ci mom sallallahu alayhi wasallam mune yàlla amna na juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent téeméer yu manqué benn yoo xam ne ku ko mokkal ku ko peeg dugg aljanna xoolal ma tuyaaba jooju nga xam ne moo nekk ci mokkal turi yàlla yooyu kon mbokk yi mokkal googu nag jubluwun ci rek nga mokkal tur wi di ko répété ci xamoon muy tekki waaye liñ ci jublu mooy nga mokkal tur wi xam li muy tekki xam melokaan wi nga xam ne moom la làmboo nga saxalal ko yàlla subhanahu wa taala ba noppi itam di jëfee la tur wa di junj moo tax ñu ne ñetti martabal am martaba bu njëkk mooy mokkal ko ñaareelu martaba bi mooy fahmu muy xam maanaam yi ñetteel bi mooy ñu jóg ci jaamu yàlla yi nga xam ne moom la tur woowu làmboo yàlla turu yàlla wu nekk dafa am ay jaamu yàlla yu nga xam ne daf koy digle danañ ci joxe rek misaal ngir mu gën a leer xam ne سن بروم سبحانه وتعالى مي واخ سي سوره شورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يال نينا دارا ملو ني يالا دارا نورومكو وايي نك ادي دغ لا ادي غيس موي وان ني دغ يالا بو دغ مو نيفامي غيس يالا نورول اك غيس مي نيفامي موتاخ بو خامي ني سبحانه وتعالى مي لاي دغ كون لولو السميع تور لا سي تور يالا da ngaa war a gën ne asami ci turi yàlla la ci la bokk mën ngaa tuddee sa bopp mën ngaa tuddee sa sa doom abdou sami wala abdul basir loolu lu dagan la mën ngaa ñaan itam ci tur woowu yaa sami ixfir li yaa basir niki noonu ñaari tur yooyu am na leneen loo xam ne da nga ko cee war a jariñoo mooy boo ne yàlla mi ngi gis mi ngi dégg kon war nga koo bàyyi xel bu baax a baax ci li wax waroo wax dara lo xamni luy junoog lu yàlla bëggul la luy wut ak lu yàlla bëggul la xool leen doomu aadama yi ak nin bëree ba adama sasoo ba kero adna tukki ñom ñep buñ togon ci benn bërepp wala ñu taxaw ci benn bërepp kenn ku nekk di ñaan soxlaam ci lak ba nga man ak lu soxla yi wuté wuute lu lak yi bari bari lu nation yi bëri bëri borom bi subhanahu wa ngi dégg kenn ku nekk kàddoom amul kàddu bu koy làkk geneen kàddu wala làkk bu koy làkk waneen làkk waneen làkk comme ni ko euh, suñ borom waxee ci alxadis alqudsi bi nga xam ne mu ngi ci saxi muslim abu zar solo ko suñ borom wax ci xadis qudsi boobu ne yéen sama jaam yi bu fekkoon ñi jiitu ci yéen ak ñi mujj ci yéen ak nit ñi ak jinne yi ñoom ñëpp dañoo taxawoon ci benn pénc ci benn place ñoom ñëpp ñu ñaan ma ma may kenn ku nekk la mu bëgg nee na loolu wàññiwul dara ci li nga xam ne moom laa yore lu dul boo jëloon ak pusa nga dugal ko ci euh, géej la xam ne moom lay génne waale ci ndox lu toll noonu kese kese mooy li nga xam ne mënees na noo jàpp ne moo wàññeeku ca la yàlla subhanahu wa taala dese kon loolu mooy wane ne borom bi subhanahu wa taala lépp lay dégg أمنا صحن استاد سني وخ خولة يوم مسون يوتي نتبع عليه الصلاة والسلام بكو كلامه برم كلام بحنة دكو فس فسين ومت مي فسين بني وخ زهار منيو دي وقت أنا جينا تبي صلى الله عليه وسلم غير مدين بلوكو سني أيها عائشة رضي الله عنها نين مي ما فيك سمنك نين أمن لين لو ما يدك جاي كادم ويا يجي ده صح دعو مكو نخ صحن سين دفع بري ستر بقول كني يجو جون problem كل مم أجينا تبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنا سنبور رب سبحانه أنا واتي القرآن الكريم أنا فدل لنا مم أنا لي صحن سيبخ أنا تخ سنيا عائشة أنا لدق تي آية أنا من مانجي تدو أنا كي خمنة أدقم أنا لامو دق يب أمو دار لو كيرتي نهدم من مانجي توك تي وتو ينتبه عليه الصلاة والسلام صحن سنيو دي دي سو ينتبه دق مسخ لم يوخ بباخ سنبور رب واتي القرآن نقد سمع الله يلا دقنا لقى خمنة مم لصحن سوسي وخ ak di ko jàmbat ci borom këram allahu akbar kon mbokk yi ki nga xam ne dafa xam turu yàlla woowu di assamia xam melokaanu yàlla woowu muy assam muy dégg naka lay waxe lu naqari yàlla naka lay waxe loo xam ne ay nar la naka lay waxe loo xam ak bokkaale la naka lay waxe loo xam ne diine yàlla subhanahu wa taala ki xam melokaan woowu ndax du li gënoon a ci moom mu gën a góorgóorlu ci tudd yàlla fu mën di nekk di jàng alquran karim di sabbal yàlla di ko sant ci ay xewalam fexe ba yàlla du deg ci mom kàddu go xamne gu bon la waye limi deg ci mom lépp lu bax lay don wax ju am njariñ lay don mbok julli ji ki nga xamne xamne turu yàlla wii xam melokaani yàlla wi liko war moy mu wattu ay batam wattu ay kaddom ndax xamne yàlla subhanahu wa taala mi ngi deg lépp lu muy wax mi ngi koy gis tam mi ngi xam itam xaalam mbokki yi loolu la ñuy wax tam ci tur yàlla al basir muy aji gis gi ndax melokaan woowu liñ ci déggee wala tur woowu nga xam ne mooy basir dañ ci dégg ne dafa làmboo melokaanu basar te mooy gis yàlla subhanahu wa taala lépp lay gis amul dara loo xam ne lu ko ump la ma nga nekk ca ma nga tiim aras ma nga xam ne moo tiim juróom-ñaari asamaan waaye amul dara lu ko ump lépp lay gis suñu borom subhanahu wa taala ma ngay gis xorandoom wu ñuul wa nga xam ne ma ngay dox ca montagne wu ñuul wa ci guddi gu lëndëm ca ñuul dara ëpp ko ci xorandoom boobu yemul sax ci loolu waaye ma ngay gis la nekk ci biir xorandoom ba ca xeeti butit ya ak biir ba ak deret ji nga xam ne mooy dox ci biir te yow jaam bu ñàkk solo bi boo nekkoon ci wetu xorandoom ci melokaan bii ñu mel melal doo mën a gis sax xorandoom yàlla subhanahu wa taala nag moom dara ëpp ko ci loolu ndax lépp la xam lépp lay gis mbokk jullit bi bu fekke geme nga tudd yàlla wo non xam melokan yàlla wo ak ni màgge subhanahu wa taala kon ndax do rus di def lo xamne ne wóor na ne la umpul yàlla mi ngi koy gis ci lo xamne lu nakar yàlla la ak fo man di tëju fo man di wet borom subhanahu wa taala mi ngi lay gis subhanahu wa taala rawati ne nak bakar bobu nga nara def yang koy def ci ron xewalu yàlla yàlla mo lay defal xewalu ngay noy tal ko am alal joko ko defe ci ay xewalam ak ay ngeeneelam ak ay baxam ci ngay defe moy yàlla googee moy yow julit bi ndax do tit nga ragal yàlla ragala fessel say moy yàlla ak say bakar ci euh كنامم ملاجس بنات مجيفني كولي عن مريخ ولم كنا خمون يالله سبحانه وتعالى ملاجس أكفي عنك لوم رق رق أقلوم نبوت نبوت خام لي جيدف أمول دار لكم بتشي سيبير مك جل دي نون ولن ورا توب بنات مولم توري يالله يرافدي أجملو كنامي كاوي نكو يك خام توري ليميتك خام لي عن مملا لامبوتي ملكان خام نلنتي جامو يالله سبحانه وتعالى loolu la xam-xam bu di fuglu yàlla ak di ko bàyyi xel fu mu nekk day yokk ci jullit bee tam yaakaar yàlla day yokk ci jullit bee tam ragal yàlla day yokk ci jullit koy gën a ragal jaamu yàlla mooy gën a jaamu yàlla mooy gën ragal tam bàkkaar moo tax suñu borom wax ci alquran na innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñi nga xam ne ñooy ragal yàlla dëgg mooy borom xam-xam yi mooy borom xam-xam yi te mooy ñi nga xam ne ñoo xam yàlla ñoo ñoo ñoo ci jiitu mbokk jullit yi suñu yaay Aïcha radiallahu anha nettali na ab xadis nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mas a yónni ab xare am koo xam ne moo nekkoon seen jiit bu julli jotee mu leen di jiite waaye saa yu leen jiitee daal fu mu jaar boole ci qul huwallahu ahad muy suratul ixlaas bim ñibi ñibbisee ñëw nettali ko yent bi sallallahu alayhi wasallam mune len laaj len lutax mu def ko ñu laaj ko mune len leen ikhlas melokanu yàlla da cey nek qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad melokanu yàlla mune ci man dama bëgg yàlla motax may bëgg fuma tollu di jàng ay melokanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne len wax len ko ne yàlla de bëgg nako nim ko bëgg allahu akbar kon bëgg yàlla boo bëggee yàlla yàlla bëgg la ci beneen riwaaye mu ne yonent bi def ne ko li nga bëgg yàlla ci la la yàlla subhanahu wa taala tàbbale aljanna nga xam ne bëggal nañ ko ci aljanna ci génn guñ àdduna kon mbokk yi bokk na ci bëgg bëgg yàlla nag nga yittewoo buntam bii nga xam ne ci leen ko mën a xamee muy buntu turam yi ak melokaanam yi ñu far farlu ci mokkal ko ak xam maanaa yi ak xam li nga xam ne moom la làmboo ci ay melokaan ak jaamu yàlla subhanahu wa taala ci tour ye la nga xamne mom lay wundu la nga xamne mom lay jundju tour wu nek amna jaamu yàlla yu bari ci aju yo xamne ne jullit bi war naa gor gor lu ci allahumma inna nasaluka hubbak wa hubb man yuhibbuk wa hubb kulli amalin yuqarribuna ila hubbik ya zal jalali wal ikram hada wa sallu wa sallimu على إمام الهدى محمد بن عبد الله كما امركم الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بكرمك ورحمتك ومنك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واعز الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم أعنهم على أعدائهم يا رب العالمين فإنهم لا يعجزونك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Assalamualaikum wa rahmatullah mbokk yi ñi ngi leen di nuyu ci sen tour ak ci sen sante yéen ñi safo di setan sen télévision islam tv yow sama mbokku julli bu goor yow sama mbokku julli bu jigéen foo munti nek ci kaw suuf mo xam bir rew wala bitim rew islam tv mo lay woo nga ak sa borom subhanahu wa taala ni ngeen ko xame dëgmal nañu liggey bu ama am solo moy taxawal télévision islam tv tele bo xamanteni di nga ci mën a jàng sa diine sàmm ci sa njaboot te doo ci dégg lenn loo xamante ne dafa safaanu. Islam TV dara nekkul yitteem loolu lan tasaare yàlla nee yant bi nee na ci kaw suuf. am nañu suñuy studio am nañu personnel bi nga xamante ni mooy jàpp ci liggéey bi ndax lépp mën a taxaw fi mu nekk képp koo xamante ni yaa ngi Pikine yaa ngi Kër Massar yaa ngi Mbaaw wala yaa ngi parcel di nga mën a seetaan télévision bi. ci réseau câble yi suñu mbébét tey mooy ñu dem fu gën a sori loolu te yaakaaruñ ko ci kenn lu dul yéen ñi safoo di seetaan seen télévision. ci loolu Islam TV soxla na cent mille musulmans yu taxaw ngir jaayanteeg seen digganteeg seen boroom ci mille francs at bu ne. cent mille yoo xamante ni tey dinañ am taxawaay bu am solo ci mbir moom mooy ku nekk at bu nekk. nga fas yéene joxe 1000 francs muy ñaari téeméer. mën na nekk ci yow sadaqa jaariya mu nekk loo xam dañ day wëy waxu yàlla ak yoram tam di wër ci kaw suuf nit ñi di ci gindeeku ci la ci 1000 francs bi nga joxe bul ko xeeb. bu ko defee li nga xamante ni bëgg nañ ko ci télé bi li nga xamante ni yaakaar nañ ko ni mën nañ ko jariñ askan bi mu nekk luy mën a antu nekk luy mën a am. yàlla na yàlla motal ñun ñëpp. baarakallaahu fiikum. Chers frères et sœurs filles-là, ce message vous est adressé. Car grâce à tous vos efforts consentis, Islam TV Sénégal a fini par émerger. Et là, nous en sommes à un tournant décisif qu'il ne faudrait surtout pas échouer. Hommes et femmes, main dans la main, nous vous demandons tous de contribuer par une modeste somme de 1000 francs chaque année afin qu'on puisse couvrir tout le territoire sénégalais. Alhamdulillah, nous sommes persuadés que toute la Ummah islamique va se mobiliser. Car quoi qu'on puisse dire, notre communauté est dotée d'une très grande générosité, d'autant plus qu'Allah subhanahu fait la bonne annonce à ceux qui dépensent pour sa cause en disant dans le Coran, ceux qui dépensent de leurs biens, nuit et jour, ouvertement et en secret, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'ont pas à avoir peur car ils ne seront point affligés.